moom euh, Mimi Touré jamono ji digganteem ak ki nga xam ni moo di président Macky Sall su jeexu tàkk tamit mën nañoo jàpp ni sax mi ngi si yoonu jeex a ginnaaw bañ ko xañeer yi nga xam ni moo di président assemblée nationale boobee ba tey ñu gis ko si ay sorties yoo xam ni mi ngi koy def ñu nemmeeku si ay ŋàññ yu métti jëmale ko si gouvernement bu Macky Sall ba tey muy àddu si jëm si wàllum troisième mandat bi nga xam ni jamono ji kenn xamagul ndax moom Macky Sall def see bëgg boo bokk am déet moom Mimi Touré si ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko di corriger ki nga xam ni moo di Macky Sall ndaxte kat jot na sëkk ngir mu wax ana fan lay féetee su 2024 ndax da siy bokk man mën fee toogaat am kat da siy génn ba set wicc waaw rek nga xam ne daf fa man mën nañoo ndax voilà assemblée nationale day am incident waaye béréb bu am solo la ndax yoon mi nga xam ne moo ñuy tënk ñu tuddee ko loi la ci vraiment nekk fa député euh. nekk fa député def fa liggéey bi nga xam ne war naa ko bu amee ay loi yoo xam ne war naa ko fa def ma def ci proposition euh, bu ko defee aussi euh, voilà li ñu sénégalais yi di xaare ñu def ko waaw defe naa ne loolu moo nar a doon taxawaayu député yëpp mhm. xëy na ci ni ñuy tàmbalee xëy na bëri na coow waaye na ma waaw si si wàllu boobu yow député majorité bi nga woon euh, est-ce que dafay am loo xamante ne dinañ ko seetlu da ngay jël wéel sa sa côté maanaam ber sa daaro wala da ngay nekk si biir majorité bi. waaw loolu dinaa la ci jox information voilà fan yii di waaye li ma la ci mën a wax de mooy la ma fay tax a askan wi lay doon du doon par parlo askan wi daal lay seet ci wàllu loi la nga xam ne doon dana doon jëriñu jigéen ñi jëriñu jëriñu jigéen ñi xale yi euh, ci wàllu liggéey. ci wàllu sécurité euh, yooyu daal mooy doon li nga xam ne euh, danaa ci indi ay xalaat euh, voilà bokk bokk député yi noon laa ci nar a taxaw par mm. parloo bi de moom du doon li nga xam ne moom la ci intéressé li ma mooy doon li nga xam ne moo gën ci askan ci xale yi ci mag ñi ci jigéen ñi ci ñi ci dëkk yu ndaw ñi ci taax ñi loolu daal laa ko bëgg a tax ku la tegaloon ab initiative contre troisième mandat foofu assemblée danga ko voté non <laughs> troisième mandat kay nee naa la sànq man loolu laa doon xaar ci président dem naa ñu ci nag loolu la doon xaar euh, man loolu laa noonu laa mos a taxawee naa ne euh, booba ba tey dama jàpp ne ñun ñi àndoon ak moom 2012 doon xeex man troisième mandat wu Abdoulaye Wade euh, du toog nag ba ne fukki at passé na ñuy delluwaat yi wax joo xam ne ji yow fukki at ca gannaaw ba nga gën a nekkee ndaw d'accord a woon ndax nag voilà. Mm-hmm. loolu loolu moom kenn waxu ko te man la ma jàpp it mooy président Macky Sall du ko def moom ci sama li ma wóor la waral la bopp mm-hmm. donc euh, na ko teel a annoncé ne deful troisième mandat dëkk bi dal bu ko defee assemblée nationale tamit dana dal ñu jublu ci liggéey bi voilà ndax fukki weer la ak juróom waaye fukki weer ak juróom gàtt na gudd na mm-hmm. ndax xale yi nga xam ne dañuy wut liggéey wala ne ci formation euh, wala ñuy taxawal seen entreprise pour ñoom day doon lu gudd loo xam ne li day laaj ñu di commencé liggéey bi bañ a ne rek ci politique. ko hmm. leeralee rek euh, rek euh, réew mi dalaat bu baax a baax a baax euh, ñu dellu ci liggéey bi bu élection yi jotee voilà candidat yi taxaw. yow candidat nga nar a doon. Sénégal continue. candidat nga nar a doon deux mille vingt quatre. ah loolu danañ ko xool nañ ci dellu. <laughs> d'accord madame Touré merci beaucoup jërëjëf bon ñu nangulee li nga xamante ne. war na li ñu war a njëkk a gën a leeral. waaw président Sall. mais vraiment damay respecté li nga xam ne waxoon naa ko 31 décembre 2018 euh, te constitution bi wax ko moom bu ko tuddee rek moom dina libéré rek donc euh, dina tax tension bi wàcc nit ñi dellu ci seen liggéey euh, ndax fi mu ne nii jamono yombul loolu dina tax nit ñi vraiment seen xel dal muy assemblée muy feneen kon man maa ngi koy encouragé li nga xam ne moom la war a def ne deful troisième mandat bu teel ko wax moom laa doon xaar nag tey ci ngoon naa ne ñu bëri arrêté nañ seen activité doon xaar loolu waaye kon nag mu ngi xalaat gouvernement xëy na bu ko tegee ba noppi ah euh, déclaration ba mu war a def mooy. mbokki internet SUNACTU TV continuer la di abonné ngir bépp information ngeen mën di ko fi am jaa ngeen jëf.